aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee na inna min aathaari nicmatillahi ala annaas inna min aathaari nicmatillahi ala annaas an yabcata fihim rasulan min anfusihim inna min aathaari nicmati llahi ala annaas an yabcata fihim rasulan min anfusihim maanaa dafa mel na yàlla xéewalam yi dafa bare lool waaye bi ñu ci gën a amal solo moo di may gi mënu may tànn ci sunu bopp kenn yónni ko ci nun yonent boo xam ni a ah, ku tudd mbokk nit ñi tudd ko waaw lu ko dàq amul bokk ak ku gën ñépp di njaboot ci ku gën ñépp lu ko gën di xéewal amul waaw di yonent boo xam ni dafay fekk ku sellul mu sellal ko fekk ko xamul mu xamal ko yonent bu nga xam ni dafa fekk ñu texee di mu fexe ba ànd ga ñu ànd ak moom ñu texee ca waaw di yonent boo xam ne fekk mooy àddu nga di ko déglu yaa nga yéeg jëm kaw asamaan te yëguloo ko waaw yonent boo xam ne dawal sa bët ci moom rek doy na yaroo àdduna ak àllaaxira waaw ku dawal sa bët jëm ci moom dootoo ñeme yare di ko yonent bu nga xam ni tànk ngay toog ci keram yaay sangu mbindeef yi waaw bu di yonent boo xam ni nag ci yooyu yépp bu wéyee la nit war a am rekk yaatu dënn gëmu ca am kenn dabu ko ca waaw mën a muñ gëmu ca am kenn dabu ko ca rëy xel ma mu ca am kenn dabu ko ca waaw tedd euh, euh, euh, ci mën a ànd ak ka mu àndal kenn dabu ko ca bare ga mu bare kersa kenn dabu ko ca fa mu jëm ni mu selle kenn dabu ko ca waaw ba tax boroom xam-xam ba dañ ko ni waaw moom yonentam gi lan la mu ni yéwénu dund la goo xam ni yërmande yàllaa ko sàkku yéwénu dund goo xam ni yërmande yàllaa ko sàkku loolu rek lañuy ñuy mën a tudde eh, eh, eh, yonentu yonent bi maanaam yàlla dafay jékki-jékki xool nit ñi gis ñu nekk ci yeneen yoo xam ni xam na ni gën nañu tedd noonu ñoom nit ñi waaw mu xam ni moom it yàlla gën na nekk yàlla noonu waaw mu bëgg a soppi affaire ba yéwénal ko ba ku nekk xam ni nit tedd na looloo sabab mu yónni yonent bi nee na ba tax na loolu kenn amul lu ko féete kaw ci war a mën a wax yonent bi lana ko tax a ñëw waaw waaw àdduna bu toskari yàlla xam ni mënatul dabaatal àdduna bu toskari bi te yéene ni nit ñi jàmm mu jox leen muhammad waaw nee na moom nag dégg gi mu dégg moom yonent bi ak xel mi mu am moo waral ci moom mu nekk sangu way xellu yépp képp ko xellu mooy sa sangu waaw ah dégg gi mu déggit moo tax buy dégg yépp ci moom lañu jëm waaw nee na te it loola sabab mu nekk di kiy ommat nit ñi di leen ommat te xam ci seen jagley bakkan ak seen jagley ruux xam na ca xam-xam boo xam ni tax na lépp lu mu mën ci doon moom xam na la cay sabab xam na la ci yàlla war a dogal ah, ndax bu fekkee ni danga war a ommat nit ñi tax xamuloo seen jagle bakkan xamuloo seen jagle ruux doo leen mën a ommat waaw waaw jagle bakkan ak jagle ruux dafa am ruux bu nekk am na lu ko yàlla jagle ndax ruux noo koy tudd mu gàtt lool waaye àdduna la waaw àdduna la bu yàlla tànc waaw nal ko nala nala nal ba mu mën a dundal yaramu nit rekk waaye kenn xamul na ruux toll waaw la ca ne ci ay jagle ndegem jàngkat mooy topp ñax yi ñax gi nangam koy dundal nangam koy defar ñax gi nangam fekk ne ci toolu jàmbur rek la nekk ku dem ci toolu ruux war nga xam ni boo xamul jagle ya ca nekk soo waxee nit ñi dama leen di ommat def nga musiba waaw waaw ndax kon dafay xaw a deme ni sama mbokk doomu ndar ma ba mu xamul toolu dugub ñu dugal ko ci toolu dugub ba fekk dugub jàngee focc mu jël sisoom di dagg poccit ma ñu ni ko lii la mu ni dama wut bouquet waaw waaw waaw moom defe ne ni bouquetu fleur la waaw ñu ni ko def nga musiba dagg nga dugub bu jàmbur ji yépp waaw ba tax na su fekkee xamuloo jag-jag yi ruux yi ak jag-jagi bakkan yi bu leen jéem a mukk bàyyi leen fa te wuti ku la ommat waaw nee na moom nag xamoon na jag-jag yépp ba tax na daal mën nañu wax ni euh, moo sës noppam fi yàlla di àddoo jëm ci sabab yi ak dogal yi moo fa sës noppam waaw loolu nag pexe amu ci nee na boo seetloo it doo xam dafay dégg sabab yaag dogal yi daf koy dégg rekk wala boog yàlla daf cay topp bëgg-bëggam dafa mel ni yàlla dal daf cay topp bëgg-bëggam ndax cir bi mu ko sédd ba loola tax bu masaan àddu nga xam ni fa muy jële du fii waaw bu àddoo rek nga xam ni fa mu jële du fii waaw moo tax ah mbokkam jaafaru sadiq waaw wax na lu ni demee bañ ko seen mbokk moomu leen ni yonent la lu mu leen indil ci lu baax jaafaru sadiq moom lañuy ñuy wooye dul doomu bàyyi taxu yonent bi la moom lañu daggoon ñaari loxoom ca xare mu'tata waaw muy xare boo xam ne ñi yonent bi fonkoon ñépp ci lañu dem waaw ci la doon wëri buntu kër gu ne mu taxaw fa ndax keroog buntu kër gu nekk boroom kër ga dee na waaw fu ne mu taxaw fa di di njaboot si fu ne mu taxaw fi di dëfal njaboot si waaw bañ ko ne jaafar dagg nañu ñaari loxoom mu ni yàlla dana ko defal ñaari laaf yu moo naawee ca aljanna waaw dañu di ko wax dul janaxayn bahalilu minhum jaafaru wabnu ummihi aliyun wa minhum ahmadul mutaxayaru ca géwélam ba waaw xasan ubnu saabit raayam bu rafet boobu la mu def ci ñoom tabarkalla jaafaru sadiq dañ ko ni lu tax ngeen topp ko mu ni kun kunna qawman ahla jahiliya naabudul asnaam dañu nekkoon nit ñu réer di jaamu xërëm wa naakulul maytata di lekk médd wa naatil fawaaxis lu ñaaw nu def wa naqtaul arxam fu bokk nekk nu dagg ko wa nusiul jiwaar ku ñu dëkkaaleel du ñu sàmm sa àq wa yakulul qawiyu minna daif ku man sa moroom duma waaw nu nekk ci loolu ba yàlla yónnee sinu ku bokk ak nun nu xam askanam xam dëggoom mësula fen mukk ba nu ko xamee mooy Muhammad ba léegi waaw waaw nu xam wëllëreem waaw masul sànq kóllëre mukk ñu xamit nu mu fegoo masuñu ko bett ci lu ñaaw mu woonu ni kay leen jëm ci yàlla ñu ni ko lu tax mu ni nu wéetal ko te jaamu ko te bàyyi li nu daan jaamu ak sunu bàyyi ci ay doje ki yu ñàkk xorom waaw mu fexe ba dootu na fen ci pénc lu nu waxati muy dëgg waaw mu fexe it ba dootuñu lekk alalu jàmbur ku nu dénk nu delloo ko mu fexe itam ba ñuy jokk mbokk mu fexe ba ku nekk ormal ka nga dëkkaaleel mu fexe ba ñemeetunoo def lu xaram mu fexe ba ñemeetunoo tur deret ci neen tere nu lu bon ak wax ju amul fulla tere ñu lekk alalu njirim tere ñu xas jigéen digal nu nu jaamu yàlla te bañ ko bokkaaleeg leneen digal nu julli digal nu koor ak yu baax ya ca topp ndax jar na ñu ànd ak moom walla jarul ñu ànd ak moom nee na kon nag wax boobu jaafar wax ko nee na ku ko seetlu ndax di nga mën a gis xéewal bu ko ëpp doole waaw ndax nit kët lu mu kàccoor kàccoor bu dëngee rekk xelam du dal waaw nit balaa xelama dal mu yëg ni ay jikkoom dëppoo naag na yàlla bëgge kooku ñépp a ci yem waaw balaa sa xela dal rekk say jikko dëppoo ak na yàlla bëgge bu ko defee sa xel soog a dal nag nee na loolu daal moo di moo di yónnentug yonent bi waaw nee na mu di yonentu goo xam ni nag nee na xeet wi def cee tedde te di ci dëgëre gannaaw ba mu doyadee te ñàkk fayda dund nit it di ci teeye gannaaw ba mu nëxee te bon nee su ko defee e, nooneel yi nëbb woon ci bakkanu jaam yi nee dootul nekk nooneel rawante gu yiw lay doon mu dëppoog la alquran la yàlla wax ci alquran yàlla nee bu leen wujjante bu leen noonoonte na ngeen rawante na fasi kursu jëm si ci man waaw diway sama noon diwa man lëjal yooyu yépp ñàkk def sa warugar rekk la boo ko defee doo xam ndax am na walla amul waaw waaw yàlla nee na itam ci alquran xam naa ni yéen ngi ci pénc mi ku nekk di fuuftandiku sa morom waaye nag lëfa ngi fii ci man loo xam ne moo ëpp asamaan yi ëpp suuf waaw te neex ba kenn xamul nu mu mel bu ngeen bëggee fàtte ñi ngeen bañ ak ñi leen bañ daw si leen jël si loolu waaw nee su ko defee nga xam ni boog yonent bi ci wàllam mooy boroom xam-xam bi nga xam ni jàngoro yépp gis na leen xamit saafara ba koy saafara ndax bala ngaa mën a saafara nit xam jàngoroom waaw koo xamul jàngorom doo ko saafara te it xàmme na li ci dund xàmme wu nga xam ni képp koo xam ni yenn la war ci àdduna waxuñu kat ñi nga xam ni yenn waru leen am na ñoo xam ni fa suñu yéene yennu ba faw waaye ñi fas yéene yenu nag yonent bi xàllal na leen yoon woo xam ni bu ñu ca jaaree tabarkalla kenn du sikk seen yenn nee na wante nag du tee nga gis ni yu baax yooyu yépp ak daraja yooyu yépp yàlla ngeen damm bakkanam di ko wax ni ko waxal nit ñi ni leen du yow rek yaay sama yonent amoon naa yeneen yonent waxal nit ñi it ni leen xamuloo lu ma def ci ñoom ëllëg xamuloo lu ma def ci yow sax ëllëg wax ko nit ñi dindi sa responsabilité waaw te te xit di sama diggante ak ñoom waxal ni rekk dañu ma wax wax naa leen te nga dandu waaw waaw mu dellu wax ko ni ko ah nun daal noo xam fa nu jaar ba jàngal la li koy tegtale mooy jëkk ñu wax la dara xamuloo woon dara waaw wax ko nit ñi wax leen loolu waaw wax leen itam ah bu fekkoon ni yàlla coobareem dafa aju ci ma bañ a xam dara lu ma leen di waxit duma xam dara lu ma leen di wax ndax nekk naa ci seen biir ba am ñeent fukki at te ma lu ma leen di wax kon nag su ma xëyee rek wax dara lu ngeen xamul woon dama ko jële ci barab waaye jógewul ci man yépp yàllaay wax yonent bi ni ko na ko wax nit ñi waaw ba nit ñi xam ni yàlla moom yëfam ah moom intermédiaire la tabarkalla waaw nee su ko defee nga xam ni boog li ñu wax ni yonent gi yéwén la goo xam ni yërmande yàllaa ko sàkku dëgg la yàllaa ngi wone ni yërmandeem rek la te it di ci wone ni ngëneel gu jàmm mën a am euh, euh, trésor la rekk bu mu dénk sa dund waaw trésor la rekk bu mu dénk si dund ngëneel looloy ngëneel ngëneel mooy yi la yàlla dénk nga di ko puukarewoo di ko doxe di ko waxe waaw nga xam ni boog lépp yërmandeem rekk la waaw su ko defee nag yëpp junj na ko waaye nag tabarkalla ah ñu daldi xam ni ah, ah, ah, coobareem moo jiitu ci yonent yi war a nekk yonent coobareem itam moo aju ci mu war leen a dimbali coobareem itam moo aju ci képp ku ko nekkal kenn du la not waaw yàlla ku ko nekkal kenn du la not <coughs> waaw nee ci lool nag ngay xame ni yëf yi daal dafa am boroom waaw bu bu bu cëqi-cëqi yi bare it benn dellukaay rek la am waaw cëqi-cëqi yi dana bare lool ba kenn ku ne defe ni la nga amee sax sañ nga ko caakaayoo waaye rek du ñàkk bés nga xam ni am ka ko moom rek ko moom keneen moomu ko waaw nee loolu soo ko seetee itam di nga gis ni euh, xew-xew yu bare dana dikk safaanoo nag ak yu neex yooyu le waaw xew-xew yu bari dina dikk safaanoo ak yu neex yooyu le su keroogee nag nga daldi xam ni ndeke nit lu mu bare bare xam-xam xamul ci yëf yi lu dul lu tuuti waaw ndax kon bu dul won loolu na mu neexe woon rek lay continuer ba faw waaye léeg yàlla wone ni rekk nit lu mu bare bare xam-xam rek xamul ci yëf ci lu dul lu tuuti rekk waaw bu ko defee nag nga dal dégg la mu wax wa yaxluqu ma la taalamuuna ak wa ma utitu min al ilmi illa qalilan yooyu yëpp nga dal di xam fa mu féete su ko defee léeg ya nekkoon ngëneel wëlbatiku dellu di ay yëf yu ñàkk fayda nga xam ni la xeet bi daan texee dana ca texee di lu ni toll waaw su ko defee na nga xam ni yàlla sàkku rek doxu àdduna war di mel noonu rekk loolu moo tax yonent bi wax ci wax bu doy waar dafa wax ñi toogoon ci kanamam ndax booba ñaari xeet ñoo gën a màgg ci xeet yi xeet bu ñuy wax faris ak xeet bu ñoo wax ruum te booba jullit yi seen kàttan àggagul fa mu jëm ñu ngi nekk ci di néewandi ñu ngi nekk ci di xalaat sax nuñ leen di maye jàmm ba ñu mën a toog bokk ci seen réew bopp ñoom jullit yi faf nag yonent bi wax leen lu leen bett mooy def leen wax ni bis bu yàlla mayee ngeen moom Faris ak Ruum nu ngeen di mel mu nekk junj bu doy waar waaw mu ngi mel ni ku nekk fii naan sama néegu ñax beeg sama tóokaru bu loox bi yàlla nañu fexe ba bàyyee ma ko ñu ni la waaw bés boo moomee ndakaaru dangay def noonu la deme yonent bi ni leen waaw bés bu ngeen moomee faris ak ruum yéenay kan bu boobaa waaw xamuloo ni kii amagul dara duñu ko àtteegum dañu koy bàyyi ba xelam dal ñu seet gannaaw xel mu dal ma lu muy def waaw mu ni bu boobaa yéenay kan Abdurahmaan ibn Awf ni ko nu def rek li nu yàlla digal mu ni ko déedéet du ngeen mel noonu bu keroogee wërsëg ak euh, alal ju bare ak daraja ak yu baax yi leen yàlla di teg ci seen loxo te sama bët a ngi ci tegu bu keroogee dingeen giiroo dingeen ngeen noonante di ngeen dëddoonte di ngeen bañante dingeen dellusi boole ñi nga xam ni la ñoo fi nekkal yàlla ak yonent bi kenn ku ne ngeen won ko ni ko noo la ëpp doole jël ko rek finq ca morom ma bu keroogee noon ngeen di mel waaw waxul ni wattu leen ko de def ni fokk mu am waaqiun la maxalat waaw fokk mu am mu ni nag suñ ca àggee dingeen ca dema dem be njéefa yàlla ñëw mu ni bu boobaa xeet yépp yàlla dina fexe ba ñu dàkkoor jëm si ci seen kaw waaw sixitoo leen giiroo leen ni ay lekkkat piir di giiroo bagaan waaw bu keroogee noon ngeen di mel ñu ni ko ndax dafay fekk boog nu néew mu ni déedéet waaye dafay fekk ngeen bon ba mel ni mbuubitu taw bu tawee ba yol fu mbuubit bu bon nekk rekk mu jël ko waaw du ngeen mel na ndox ma ndox ma dafa sell ni mbuubit nga ma ngeen di mujj mel yéen jullit yi bu keroogee ku leen ragaloon yàlla dana dindi ragal ka ca xolam def ca yabeel mu yab leen waaw bu keroogee e, njàmbaar gi ñu leen xame yàlla dana ko dindi e, e, wuutale ko ñàkk fayda waaw euh, euh, li ñuy tudde alwahan mooy ñàkk fayda waaye ñu ni ko lu luy ñàkk fayda bu boobaa mu ni bëgg ga ngeen di bëgg àdduna ak ragal ga ngeen di ragal dee rek waaw yépp dana ñëw ma ni ko bu ñëwee de kon àdduna tukki waaw mu dellu wax ni bu ko defee juróomi jikko juróomi jikko maa ngi maa ngi wax ni ndax dina mën a nekk ñu nattoo leen juróomi jikko yooyu le waaw maa ngi maa ngi ñaan yàlla te xam naa ni bu ko do bu ko bu ci dogo dana ko def ñaan gi du man mu def ko ma maa ngi leen di ñaanal yàlla ngeen ngeen bañ a ngeen bañ a àgg foofu nag ci juróom jikko yooyu tëkkat di fa àgg juróomi jikko yi moo di maa ngi leen di xamal ni def lu bon def lu bon du feeñ ciw nit ñu ñeme di ko siiwal lu dul mbas bare na ci ñoom ak feebar yoo xam ni ñooy xam feebar ya waaye seeni maam xamu ko woon waaw def lu bon ñeme ko di ko feeñal ci mbedd mi nee du feeñ ciw nit lu dul yàlla feeñal na ci seen biir mbas ak i metti ci feebar yoo xam ni maam yi xamuñu ko woon waaw mu ni itam du ñu sàccante itam ci natt moo xam nattu piis la walla nattu dugub walla ceeb la ci boutique yi walla ci marché yi du ñu sàccante ci biir natt yi lu dul yàlla xiir na leen Eh, eh, bekkoor waaw bekkoor bu rëy ak buur bu leen ñeme lool di leen def musiba te duñ ca man dara waaw bu nu itam duñu dem ba añaan a génne lu ñu jariñe seeni mbokk ci seen alal lu dul yàlla tëj na taw nee bu dul bàyyi ma yi rek dootu ko wàcc taw nee na di ngeen àgg ci tëj seen alal dootu leen ci jariñ seeni mbokk ba yàlla dana tëj taw bu geestuwul gis bahima yi rek dootul taw waaye dina xam nag ba xam ni nit ñi jaruñu bahima yépp alku mu yërëm bahima yi faf taw waaw reeni teyit xëyu ñu xëy firi wëllëre yàlla ak wëllëre yonent bi te yàlla fekkul noon yu bare doole mu xiirtal leen ci seen kaw ñu nangu lañu amoon waaw soo demee ba defe ni yàlla mën na lëtu la dara moog yonentam ah xamul fu ma ko doon waxee ti de waaye mel na ni e, ca réew mu ñoo wax Allemagne